waaw fii moom li la jëlee euh, soixante mille ba trois cent mille ku fu ñëw am xar. soixante ba trois cent ku ñëw dina am xar. waaw ñëw di nga am xar ba trois cent mille ku ñëw di nga am xar sant depan nag nit ñi moom ku ne ak li nga tolool rek mais loo mënta tolool rek boo ñëwee fii di ko fi fekk. kon ak nit ñi nga xamante ne ñu ngi naan xar dafa cher du ma dem. non non xar seerul xar boo gisee ni ñi naan dafa seer du seer ku ne ak li nga tolool. boo ñëwee rek di nga ko am waaw xar boo ñëwee fii loo bëgg ci xar di ko am xar boo bëgg itam am na fi ak prix bu mu mënta doon mooy prix bi ma la wax rek li la jëlee soixante-quinze moom jëm kaw ah ku ñëw am ko. mais d'habitude bu ñuy faral di dégg ci làmmiñu sénégalais rek ñu naan da ngeen di faral di jëndee cinquante pour jaayee deux cent wala cent. pour jaaye deux cent. wala cent comme jënd xar deux cent wala cent. non eh, non non non sans départ rek xar moom boo ko jëndee yaa xam ni ko jëndee ak li ci def waaw affaire u njaay la rek waaw nit ku ne mën ngaa jënd xar quarante mille ñëw jaayee eh, quatre vingt mille loolu yëpp da ciy am mais da nga ciy jëlaale bi yooyu yëpp da ciy am waaw yooyu yëpp da ci am waaw ku ne nag moom xam ni nga amee sa xar yaa xam ni nga koy kiiyee fii moom xar moom loo fi mënta def daal comme li ma la wax boo ko defee nga am xar. mais est-ce que xar yi ñu ngi dem. waaw xar yi ngi dem ñu ngi dem nag mais demwul comme noonu xam nga ne sa Ndakaaru moom amuñ daanaka boo xoolee mujjantal bi la ñuy jën xar veillé bi waaw amul place ndax yow mënoo luyee benn ker ak xar nu mu saltee nga bog koo jën ci semaine dugal ko foofu mënul nekk waaw ñu ngi xaar nag waaw. bi passé. après coow li day daj bopp nit ñi naan Dakar dafa salte jaaykatu xar yi yoo koy yàq est ce que noonu la demee réellement. non na mën naa demee noonu mais itam dafa am loo xam ne foog nit ñi gëm ko gis nga suñu maire yi nañu bàyyi naxante di liggéey ñun fii dañ ciy dañuy dañ ñoo may mais fii base boo fi gis fukk junni lañ ci fay. waaw léegi yow loolu bu amee kon yow bu ñu paree war nañoo mën a mobiliser jël seen i équipement ñuy ñëw bale ndakaaru mu set waaw loolu la rek waaw. mairie yi moom comme lu ñuy dagge fi nit ñi boo fi ngay duggee nii jëm HLM noonu lay demee waaw mairie moom comme yaa ngi le xaalis obligé nga liggéey ñun nañu bay naxante bi liggéey réew liggéey ko yor ñuy waaye dëkk bi waaw ku ne def ko cëru boppam Sénégal jëm kanam waaw. maa ngi lay jaajëfal bu baax. waaw jërëjëf yal na yàlla yokk xiwal gi yokk seen liggéey yal na ñu dégg leen comme bu mel ni sama kii boobu xam nga rek RFM yal na ngeen am lu bari. waaw yal na yokk seen kattan jërëjëf. waaw ñu ngi santaal yàlla bu baax a baax ndax daanaka ñun suñu dara li si des bareetul waaw daanaka xar yu bari jaay nañ ko nag mais des na nag yoo xamante ni nii jaayaguñ ko mais daanaka ñu ngi dem nang-nang. su ma la déggee nga ni yi fi nekkoon yu bari dem na day mel ni kon xar yi ndaw yi ñoom ñoo dem parce que fii ay kuy rek fi ne. waaw dëgg la fii moom daanaka kuy rek fi des xar yi xar yi ndaw yi daanaka jaay nañ ko. est du tamit lu prix bi cher ba nit ñi ragal a ñëw moom moo may waral xar yi mag yi di des. ndax xam nag ñu ni xar yi amuñu si dara boo xoolee xar yi amuñu si dara ñu ne xaru yar la ñuy yar la ñuy jaay daanaka luñ ci am du du doon dara franchement moo tax xar yi xar yi mag yi aussi duñ ko mën a sànni bu jaww itam dañ ko jël rek yóbbaal ko suñu kër mais ñu ngi ñaan yàlla nag mu jar ndax ñun suñu xar moom ñu ñee bàyyi defal yàlla amul lenn suñu dara suñu dara seeru na gars yi ñëw dina xar ñu yóbbu ko. mais bu bu suba la si fajar gi la xar yi bari di dem parce que foofu ngeen di xamee ni caaxaan faaxee ngeen baissé prix bi. waa du si bëgg nag dañuy réeré mbir xam nga fi mu toll nii daanaka dara bëgg na ay xar mais xar yu bari jënd nañ ko mais ginnaaw waaw ginnaaw gars yi amuñu fu ñu denc dakaar ku ne xam nga ne denc mooy dencukaay bi mooy problème gars yi yu bëri dañuy jënd di waat ko si dara bi léegi yow sax ñu yaa ngi gis xar bi da nga naan xar bi xar am na fekk xar yooyu laa veille boo ñuy daf à 20h boo ñëwee da nga fekk xar yëpp dem xar yëpp dem nañ waaw parce que Dakar dañu am problème problème fu ñu denc léegi bu defee boo jëndee nga jox waa ji la lay jaay nga ne ko dencal ma mais xar yu bëri jaar na ci kër waaw. mais aussi nga dem ci daral yu mel nii nga fekk fa xaru 100000 wala 150000. waa parce que xonte bee xaw a métti rek moo tax ñuy suñu xar yi duñ ko sànni ndax tey jii moom vraiment moom liñ son liñ daj ci xar yi sonn ci loolu bëgg lu baax du tax ñu jël suñu xar di ko sànni même bu la bu lambee itam dañ ko jël yóbbaat ko kër ga rek dencaat ko waaw. est-ce que tamit à un moment loolu du nekk pertement ci yéen di yar di yar di yar. waaw xam nga rek ñun moom amul kese moo tax ñu yar ndax boo xoolee xar yi amuñu si dara a que ñu yar mais amuñu si dara dara dara ci xar yi yar bi nag amul lañ ci am di ko def mais amul lenn loo xam di nga def ci xar bi ëllëg gën naa amul loo ciy gagné loolu amour bi kese waaw ndax ñun moom def ba ñu xalee ba léegi la ñuy yar. bu ñu xool itam bu événement bi weesuwee polémique bi tourné ci biir sénégalais yi wala ci biir ndakaaru dañu naan ndakaaru dafa salté lu ko waral ñu ne jaaykatu xar yi ñoom ñooy ñibbi bàyyi ndakaaru noonu. ñu boo xoolee suñu fii dañuy am rato am bale chaque jour bu ñu xëyee dañuy rato bu ñu wàccee dañuy baral bu tabas bu jeexee ñun waa HLM fii dañuy cotiser waat comme ni ko defee woon bu ñu ñu koy jox bu ñu dawaatee noonu la ñu ko ah, commune ndax bi ñuy ñëw fii fayu ñu benn taxe du ndox du courant du dara lépp dañ ñu ko maire moo ñu ko indi kon bu ñu demaat dañu defaat fii ba mu baax comme ni ñu ko joxe woon ñu jëlawaatee leen ko noonu ndax ñun loolu ñu waxante woon ak maire bi te loolu lañ ko defalee bu soobee yàlla maa ngi lay jaajëfal bu baax. am benn problème père jërëjëf et bon continu bonne continuation bonne continuation. aywa. maa ngi lay béggee. maa ngi lay béggee. naka waar. sant yàlla bu baax. mais staff fan nga. staff Bergerie Doudou Codou Diop ah. waaw. mais gars yi ñeen seen xar dafa cher trop. non cherul xaru yar boo ko la xaru coogal. xaru xaru xaru yar boo ko la xaru coogal. da nga jàpp ni gars yi xaru coogal la ñuy. waaw ah, mais bien sûr boo xoolee boo xoolee li fi nekk ah, lépp. la plupart cat ba cat li ci ëpp ay coowal moom fi nekk waaw. mais nag bu ñuy xool nag bu ñu waxee tabaski. xar yi da ngeen war a wàccee prix bi de gars yi. dañu war a wàccee prix bi loolu moom dëgg la mais gars yi am nañ xaar mais dañuy dañuy xaar dernier moment dernier moment loolu mën na leen mën na métti si ñoom waaw mën na métti si ñoom comme li nga dalee 2012 waaw di xaar dernier moment ku nekk am 100000 nga am moto bu ndaw métti na. tamit yéen du ngeen ci def xéwal. non instant ñi def xéwal ñi def xéwal bu baax instant jar naa jaay naa benn xar xar 350 te boo gisoon tey da ngay naan xar bi jarul 350 jar na lépp 350. xar 350 mille nga ne ma jaru ko. ah non selon xar bi nu mu toll ak ni mu nu mu mel. mais xanaa nag sax jarul loolu wala ci lay yem. ëpp na loolu wallaahi azim ëpp na 350 mille. mais sa daral fi mu toll nii est am na xaru cent cinquante mille wala cent cent mille amu ci. am na ci bu am na ci kay ah. am na ci waaw. non du non non du tëralaate de laajuma du tëralaate. maa ngi lay jaajëfal bu baax. jaajëf kenn